ci vitamines yu bëri alfi moom ngay euh, toggee ndekki complet am na meew am na bër waaw pap am na meew am na beurre te xam nga loolu soo ko waxee mooy euh, wax ni géej gi am na ndox rek parce que les produits Sofia euh, ñoom xam nga leen ci wàllu produit bu baax produit de qualité muy margarine yi nga xamante ne pap waañ bee ko tax a jóg mais pas waañ bi kase parce que ndekki bi wax nga ko léegi xam nga boo yeewoo sa yaram dafay soxlo li nga xamante mooy beurre. ak li nga xamante ni mooy meew te loolu beurre Sofia da koy defar bu fekkee nag sa poche ci ñaar fukk la toll dawal ci boutique ba jënd ci stig yi nga xamante ne 100 francs kase lay jar soo mel ne ni jël daal di jël sa pot a ndékki jël nag sa mburu su fekkee nag pare nga nga daal di jël pot dem ak moom ci waañ a defar li ne mooy gâteau de ratatouille nga xamante ne moom la ñu bëgg démarrer semaine bi ñu tàmm ko parce que xam nga ni soo déggee ratatouille bokk na ci euh, recette yoo xamante ne Euh, naam tur bi compliqué na mais dafa c'est très très riche en vitamines c'est riche en minéraux parce que lépp li nga xamante ni mooy fruits ak légumes ñoom ñoo ñuy jox vitamines yi ak minéraux yi nga xamante ne sunu yaram euh, daf koy soxla muy lépp li nga xamante ni mooy courgette euh, mën naa ko yàq nii ngeen koy gis muy nekk jeu de couleur bu rafet bi nga xamante ne moom la ñu am ci pool bi pap nga xam ne ci suba dama dagg sama ay courgette dagg li nga xamante ni mooy aubergine maman Bijou wax na ko sànq muy batense jël naa li nga xamante ni mooy tuuti carotte bokkul sax si ratatouille mais tamit euh, sooy defar sa ay euh, recettes yu mel nii laaj na nga changé ko tuuti donc jël naa li nga xamante ni moom mooy poivron poivron couleur bi nag gis nañ ni mi ngi dem euh, donc jël nañu poivron bu vert jël poivron jaune mais mën nañu jël poivron bu rouge ak bu orange parce que gis nañ ni plus euh, maanaam saison bi di di dem ci poivron yi nga gis da ngay am bu verte am bu orange am bu rouge ak bi nga xamante ni mooy bu jaune xam nga poivron nag baax na ci xel pour ñi nga xamante ni dañu am naax maanaam xeetu ñooñu di naax noonu dañuy consommer poivron bu bëri baax na ci ñoom. donc li nga xamante ni mooy aubergine se nga xamante ni soo ko tegee si ceebu jën bi léeg-léeg nit ñi dañ koy buuxante mais jël nañ ko dagg ko ba mu sew daal di koy def ci saladier bi Euh, moom tam dina ci andi benn touche boo xamante ne euh, c' est ci li nga xamante ne mooy gâteau de ratatouille bi en temps normal nag su fekkee da ngay defar sa ratatouille da ngay jël nii rek jaxase ko parce que nii mu nekkee nii rek salade la. mën na service de salaat cedd pour ñi nga xamante ne dañuy dox ci ay euh, xeetu salaat yoo xamante ne ñoom la ñuy am en semaine mais bii nag dama ci yokk yeneen bagage yoo xamante ne dama koy def gâteau donc nag su fekkee danga def gâteau xam nga ni ay éléments de lien dañuy ñëw parce que soo ko daggee da ngay bëgg assemblage bi ni mu ñu mu ñu maaralee noonu mu ñëw te loolu li la koy may mooy farine ak li nga xamante ni mooy nen beurre soxlawul parce que dama jël li nga xamante ni mooy margarine euh, soufia yi daal di koy toggee li nga xamante ni moom mooy sama ratatouille am naa fi nen wax naa ko dinaa jël ñett wala ñaar daal di koy toggee am fi tamit ñetti xeetu fromage yoo xamante ni jël naa ko ci suba muy euh, bi ñu fi am euh, tout le temps entremont emmental bi nga xamante ni foo dem ci marché yi mën ko am am naa fi bi xawoon duroog waaye fromage bu saf bi rek xel mi xanaa man lekk ci poivron bi euh, am naa fi tam li nga xamante ni moom mooy euh, euh, mozzarella donc mozzarella pas bi nga xamante ni moom ñuy def tomate mozzarella mais plutôt mozzarella bi nga xamante ni mooy dem ci pizza yi donc ma am fi parmesan wax kañ parmesan mooy fromage bi nga xamante ni soo koy def soxlawul ngay def xorom bu bëri parce que dafa nekk fromage boo xamante ni c'est très très fort en goût donc moom laa ciy def donc fromage bi nag. Euh, jàppal ni dina ñëw assaisonné li nga xamante ni moom mooy légume bi donc dama ko siy def def moitié bi parce que li ci des damay xaar ba ma enfourné ko ba pare ma soog ko defaat ci moule bi donc boo jëlee sa ñetti xeetu fromage yi ñaari plutôt daal di koy jaxase ci li nga xamante ni moom mooy légume bi donc xam nga jusque nii ku dul lekk légume maanaam bu fromage bi ñëwee rek di nga xam ne di nga mën a tàqamti ko tuuti parce que minéraux yi euh, maanaam bu bu la ko légume bi joxee nga daal di ñëw nag li nga xamante ni moom mooy calcium bi am ko ci crème fraîche euh, président bi ba pare am ko ci li nga xamante ni moom mooy fromage bi mais jàppal ni laata ñuy def li nga xamante ni mooy fromage bi ak crème fraîche bi nañu légume bi parce que def nañ ci tuuti xorom def ci tuuti poobar donc dañuy jël nag tuuti jëlaat tuuti ci margarine bi sofia bi daal di ci li nga xamante ni moom mooy moule bi donc da ngay tibb tuuti rek pour booy génnee sa sa gâteau mu mën a démoulé wu bu baax su ko defee nga tartiner ko bu baax ci biir fond bi daal di jël nag li nga xamante ni moom mooy appareil bii ñu defar pour mën ko def li nga xamante ni ci buur ci mooy euh, dem ci four bi four bi taal nañ ko sànq euh, chaleur 180 degrés pour mu préchauffer wu parce que loolu tamit bokk na ci recette yi nga xamante ni ci idée yi nga xamante war nañ di ko préciser parce que su fekkee da nga jël sa gâteau def ko ci four bu sedd résultat bi du nduroo ak boo boo préchauffé sa four laataa nga koy def nga ciy def ci li nga xamante ni moom mooy ay appareils yi ñuy préparé donc ñetti nen moom la ñuy jël daal di koy jaxase ak li nga xamante ni moom mooy euh, appareil bii ñu defar soxlawul ñu koy mélanger dañuy jël rek maanaam wis ko ci biir euh, euh, euh, légume bi nga xam ne moom la ñu defar ak fromage bi donc soxlawul muy bëri lu toll ci benn kuddu farine parce que tout juste dañu bëgg mu mu tenir soxlawul mu farine bi di dominer li nga xamante ni moom mooy légume bi donc gis nga nii nga xamante ni gis nga fromage bi def ay filament parce que genn wàll yëpp sëy na ci biir maanaam ci biir salade bi ba pare odeur bi nag mënuma la wax nu mu neexee parce que xam nga ni fromage parmesan c'est très très riche en goût bu ñëwee fekk si li nga xamante ni moom mooy emmental ak li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, fromage bu pizza bi donc loolu dafay yokk neexaay bi donc bu ñu batee nen bi tamit ñu ñëw def si mais tamit euh, dañuy mesurer pour tamit nen bi bañ a dominer li nga xamante ni moom mooy goût gato bi donc Pape suñu paree ci yëngal bi ni mélanger ba yëpp daje ñu daal di ñam nag laataa ñu koy euh, enfourner parce que bokk na ci ay recettes yoo xamante ni soo ko enfourner ba pare dootoo mën a rectifier li nga xamante ni mooy assaisonnement bi donc nag xam nga du mën a ñàkk ci li nga xamante ni moom mooy euh, recettes yi ba tax na jël naa tuuti jambon pour andi tuuti goût euh, maanaam xeetu dog yooyu nga xamante ni recette da koy am jël naa tuuti jambon nature boo xamante ni jambon de bœuf donc moom dama koy parsemer maanaam su ma enfourner ba pare dama koy wis ci kaw laataa ñu koy enfourner bu enfourner bi nag 25 minutes la four boo xam ne dañ ko préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes ñu génne ko xool gâteau bi nan lay mel ñun nag fii waa yeewu leen ñu leen di lekkal seen wàllu dañ koy yéegal na li ci kaw nga xam ne day nekk dégustation en privé donc Pape mën naa continuer euh, le temps que may enfourner euh, li nga xamante ne mooy gâteau de ratatouille bi nga mën a jëlaat li nga xamante ne moom mooy euh, antenne bi ma mën a enfourner rek après ma indi ko ci kaw ñu xool quest que ça va donner allah d' accord kon ba ci kanam Alfi ñu ngi lay xaar. d' accord maa ngi ñëw on t' attend on tout de suite. Euh, bu bu paree. nga fekk si ñu ci euh, euh, plateau bi. pour ñu àggali en attendant 10 h mooy doog a jot dañuy jàll ci règle de base yi ak xadis yi.